bokk na ci waxi sëriñ bi mu ne njaayum xam-xam day mën naa am nga jaay ko ci barab mu lamb waaye njaayum teggin moom du lamb mukk-mukk daa wax rek teggin lu mu féete kaw lépp mu ne yaxantum xam-xam mën naa lamb waaye yaxantum teggin moom du lamb benn yoon